nuyu nañ leen sant leen gërëm leen ci Aladji Malick bi xibaar yi dañu koy doore benn ponk la muy diggante Wayne Rooney ak ki nga xam ne mooy Cristiano Ronaldo Rooney bu ngeen ko déggee nag ah, def na ay tojaange fële ca Manchester United lu fa sax Cristiano Ronaldo deful ndax légende la fa woon jamono ya nga xam ni mooy jamonoy 2010 ah, jëm kaw nga xam ni booba Alexander Ferguson wala Alex Ferguson moo ne woon la nga xam ni mooy coach ba tey ji nag daa xëy dugg ci caaye Cristiano Ronaldo dugg ci caaye dirigeants yi Manchester United yi ba jeex tàgg la mu yebb ci ay kàddu bari na lool kàddu yoo xam ni mën nañ caa dóot baaraam maa ngi ko jëkkale ka nga xam ne mooy Cristiano di xam le ni Cristiano Ronaldo dirigeants yi Real ah, ñi nga xam ne ñooy Manchester United dañ ko war a bàyyi la tax ñu war koo bàyyi nag mooy Manchester United Cristiano Ronaldo ci équipe bu Eric Ten mën na faa dugal ay bii mën nañ koo fay xaalis bu bari mooy tamu fi mu toll nii jëmpagul ci gone yi Manchester yi mooy maanaam ay trophée ndax trophée fi mu toll nii ñoom waxaale wuñ ko ñoom lii seen yéene bëgg ko fii ak jàpp ñett ba ñeenti at ñu defar équipe boo xam ni équipe bu mën a jël ay trophée la te loolee day fekk Cristiano Ronaldo mën naa am beneen taxawaay boo xam ni daanaka dana am lu mat ñeent fukki at te loolee du mën a bokk ca boobay projet kon li taxaw ba taxaw mooy li muy ñaan mooy gars yi jël ñi nga xam ne ñooy gone yi ak ñi nga xam ne ñoo mën a toppatoo équipe bi ñu defar ko fii ak Euh, maanaam ñaar ba ñetti at yoo xam ne trophée yu leer dina ca manaam a am kàddu yooyu nag mën naa am dina naqari lool Cristiano Ronaldo.